note euh, Seneweb TV seneweb.com ñu ngi leen di nuyu euh, di leen ziar tey nag euh, ñu indil leen benn gan un international sénégalais bu ñuy wax Stéphane Badji am 21 sélections ci équipe nationale dont 18 officialisées également il a joué des ci coupe du monde bi donc dañu koy bàyyi mu présenté wu ak mbokku internautes yi Stéphane ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay mm-hmm. waaw di di nuyu waa Seneweb waaw di rafetlu. liggéey bi ñuy def euh, di kontaan voilà ci ci dalal bi mu leen dalal. voilà nga nekk un international euh, sénégalais jaar ci équipe nationale mais jaar également ci yeneen équipe euh, bala ngay dem voyage ngay ñëwaat tuuti rek ci sa parcours fan nga débuté ba fi nga àgg nii. bon Stéphane fii la débuté ah fii la débuté depuis tout petit voilà commencé ci école de football yi après jóge fa joué nawetaan sama koñ Colobane jóge fa dem joué benn équipe euh, bu nekk à côté bu bu ñuy wooyee Molomp voilà division régionale. Mm-hmm. après nag fa laa jógee dem euh, euh, Rufisque joué fa Yaakaar petite catégorie après ma joué nawetaan ASC bi ñuy ne Jaloore. Mm-hmm. joué fa ñaari ñaari at après dem xam-xam de Bel soog a ñibbi si at euh, Casa. Casa Casa ñaata nga fi def. donc Casa joué naa fi euh, trois saisons 2009 laa fi ñëw joué 2010 11 12 12 bi bon ay bout de match laa joué après voilà ma ma am contrat en Norvège ma mais également jël nga fi ay trophées. waaw ak Casa euh, jël na coupe de la ligue en 2010 en 2011 voilà ma jël coupe du Sénégal bi. après nga voyagé dem Norvège sa voyage nan la demee. bon expérience bu bu bu bu bu metti la woon ah, mhm. parce que boo boo jëlee euh, un villageois nga war ko jëlee ci voilà dëkk yu seddee noonu mu leen na ni ay moyens moins vingt lay def donc euh, c'était un peu difficile parce que déjà maa ngi fay dem en mois de janvier. Mm -hmm. donc mois de janvier euh, voilà Norvège de euh, c'est c'est trop difficile mais comme xamoon naa aussi li ma fa yóbbu. donc je me suis dit bah écoute euh, coono bi voilà ci laa juddoo donc euh, waruma jaaxal. nan nga nan nga def ba habitué puisque yow déggoo woon seen langue et tout. bon c'est juste que voilà intelligence la laaj ak concentration comme dégguma woon jamono yooyu anglais voilà olof laa fa yóbbaale ak français alors que existé wul foofu. Mhm. Euh, bon damay concentré wu di xool aussi. ñi jiitu mhm. li ñuy def bu coach bi ne baax na mu ne leen kon yoon baa ngi nii donc euh, boo demee ci dëkku jàmbur boo dëggu seen làkk donc dafa laaj concentration ak euh, intelligence mhm. après Norvège fan nga fan nga demaat bon après Norvège dama dem euh, Turquie mhm. Başakşehir voilà ma joué fa benn saison après ñu transféré ma Anderlecht après foofu Turquie ñaata année nga fa def bon Turquie mën naa ne def naa fa trois ans mais trois ans yi ci trois clubs yu yu différents waaw après Turquie ci nga demee fan bon après Turquie euh, bi ma jógee Bursa ma dem euh, Ludogorets en Bulgarie voilà ma joué fa aussi euh, trois saisons mercato janvier bi passé laa fa jógee dem Istanbul encore pourquoi Istanbul bon c'est juste que voilà benn président bu am projet mhm. voilà yor benn équipe donc euh, ñu jógee troisième division yéeg deuxième division donc objectif moo nekkoon voilà recruter ay joueurs ba mën a yéeg euh, première division donc bi ma waxee aussi projet ma gis ci sama bopp ma ne pourquoi pas xaaral ma dem jéem a relever benn benn défi. ok est-ce nekkul woon euh, un choix bu difficile par rapport ak fi nga nekkoon ak fi nga jóge fi nga dellu. non du du nekk choix bu difficile parce que voilà comme man aussi du. du man kese maay diriger sama carrière mm-hmm. donc euh, j'ai des amis dommage que tey waroon nañ fi nekk mais béj bee tax mm-hmm. parce que dafa nekk voilà des amis de bruit donc comme tey dañ fi am naxar ma mën na leen léegi nañ bàyyi ba suba mm-hmm. voilà ñu mën a euh, créer suñu suñu yendu mais sinon euh, du ma décider man kese donc su ma amee aussi benn club bu ma contacter voilà dama koy dugal ci groupe bi ñu ñu discuter si ku nekk wax ci xalaatam parce que comme aussi voilà ñoom ñoo ma jiitu ci milieu bi te ma am aussi cofeel ak considération ci ñam mhm. donc lépp lu may def dañ ci dañ ciy waxtaan équipe nationale bu Sénégal mu jël champion d'Afrique nan nga gisee loolu waaw di ko rafetlu comme sénégalais ah di ko rafetlu comme sénégalais yi parce que voilà euh, lu ñu def dañ ko xaar ay ay at. Mm-hmm. voilà saa ñu demee <laughs> wuyaa yooyu lañ fay jëlee. <laughs> donc ren bu ñu fa jëlee mbégte dañ koy dañ koy rafetlu. Mm-hmm. dañ koy rafetlu malgré que bon début match yi xawoon na stressant tuuti ba voilà ñu ci bari amuñoon yaakaar bi. Mm-hmm. mais après voilà comme li ñuy neen. départ bi mën naa bon mais arrivé bi moom voilà ñëpp mën nañ ci kontaan. voilà euh, kañ nga gëj am ci équipe nationale. Bon, si je me rappelle bien, c'est depuis euh, 2000, de, 2016. 2016, la euh, euh, sélection. Je pense que euh, c'est mon dernier match avec l'équipe euh, nationale, c'était euh, contre Afrique du Sud. Voilà, Ta relation avec Aliou Cissé Bon, du, du, du relation, bu, nous m'avons dit ça. Bon, man, nous avons relation avec. ak euh, coach en sur en équipe nationale c'est juste que liggéey moo ñuy boole donc euh, damay respecter li ma laaj voilà moom aussi mu respecter aussi sama sama sama engagement aussi mais côté relation genre bon relation bu ma ko déggee mooy ndax dañuy wootente wala dañuy dañuy demalante. Mm-hmm. non c'est pas le cas. voilà qu'est-ce qui s'est passé entre temps parce que gisoon nañ la équipe nationale jékki-jékki saa yi gisatuñ la. lan moo xew ci diggante bi. bon loolu je pense que question boobu dama la koy delloo donc euh, boo amee chance aussi dem euh, conférence de presse war nga ko mën a laaj ne ko mais Aliou voilà dafa am benn jour bu tudd Stéphane donc euh, lan moo tax mu mu raar ci équipe nationale bi comme les dinosaures peut-être que moom dina la jox raison yi mais man sama côté moom bon. xamoo lan moo xew. xaw ma xaw ma raison yi. Hmm. donc ba tey jii nii maa ngi ci kumpa comme bon comme sénégalais yu bari ah que luñ ma laaj aussi damay ne noo xaw ma parce que. bëgg nettali aussi bu mu tax nga sosal sa morom. Mhm. donc moo tax aussi ma préféré garder sama calme peut-être que bés dina ñëw moom dina ma ne ah peut-être euh, voilà jamono yi ma la daan teg ci banc bi ni nga fa daan toogee moo rafetul donc je sais <laughs> nga jàpp daal ci toogaay banc bi la. bon parce que je sais que musuma biddante équipe nationale musuma fa xeex ak joueur donc euh, voilà je respectais su ma mayoon tamit 15 minutes dama koy jël te aussi euh, su ma demoon sélection jàppewuma ko comme. millier de vacances parce que saa yu ma demee sélection bu doon match bi samdi la donc chaque matin dinaa yeewu avec quelques joueurs voilà euh, dem ci salle bi entraîner le matin le soir ñu dem entraîner. Mhm. même si je joue pas bu bu ñu jógee woon ci match bi bu ñu delloon woon hôtel ba damay dugg ci salle bi entraîner parce que man damay ne toujours jour day day pare. Mhm. parce que bugguma coach bett ma parce que coach euh, nan laa koy waxee boo ko wonee kanam. Mhm. genre li nga ma def nii neexuma Euh, mën naa xaar ba période bi ngay nekk ci baisse de forme mu ne la kaay jouer tu passes à côté après danaan moom moo doon réclamer place titulaire alors que man j'ai jamais réclamé voilà une place de titulaire donc euh, nekkoon naa fa j'étais bien avec tout le monde tout le monde moo respecte donc euh, après aussi ma non sélection moom voilà munuma ci sore trop quoi peut-être boo amee chance jàkkaarloo ak moom boo ko laajee voilà euh, dina la wax aussi raison yi mais tu espères un jour nga ñëwaat ci euh, équipe nationale bi. bon xam nga pour sa dëkk moom tu vas jamais dire non. Mm-hmm. voilà man moom fii ak maa ngi compétir moom wala je suis mais si c'est pas le cas moom boo ma woon damay ne ñëw ma. Mm-hmm. parce que man bugguma injustice. parce que tey par exemple ni moom toogoon na fi mu ne joueur bu joué club am du ma la woo. joueur bu dem ci naar yi du ma la woo alors que tey yaa ngi woo ay joueurs yoo xam ne ne néew ñu di jouer seen club parce que tey man damay wax le temps. parce que wax Sénégal dafa metti mhm. mën nga wax ñu ne luñ ko woowul moo tax mu wax loolu mais tey boo jëlee logique tey Sénégal waruñu toll foo xam ne par exemple nii dañ naan bu Gana joué wul Sadio Mané joué wul Ismaïla Sarr neew fi Kalidou neew fi dañuy am problème ñu ci niveau boobu. Mhm. tu penses que tout le monde est capable de jouer euh, ci équipe nationale bi joueur bu nekk war na fa mën a am place am. non du joueur bu ne day dépendre ci joueur bi ndax am na niveau mhm. donc loolu mais tey boo amee benn onze nga dem jël yeneen douze yi. mu leer ne yow diw bu fi nekkul sax da nga koy dangay ngay pour dugal ko boo xoolee tey par exemple ni kaan bi ñu jógee mais jours yi bari dañ fi passé complètement à côté sénégalais yi di leen wax du n'importe quoi alors que tey man je me dis que jour da nga koy préparé parce que booy yi amuñu expérience bo boobu parce que duñ duñ ko xaar nga ñëw dugal leen ci ay match yu compliqué ñu passé à côté donc mais loolu après da nga leen di reconfronter mooy da leen di woowaat mais jour yi mënuñu ñëw ñu def kaan bu bon ba pare après nga nga écarter leen déjà ñooñu jouetuñu en club donc c'est un man côté injustice boobu noonu lay déplorer tout le temps parce que man moom voilà dañuy mhm. ñu waxante dëgg si c'est pas nga dem ma dem mais du la dépasser doo ma dépasser mhm. donc man loolu dama koy déplorer tout le temps donc joueurs yi am na nooy waxee ak ñoom dinañ la déggal am na aussi nooy waxee ne ah Stéphane dama gis ni temps yi club ba voilà doxuloo néew di jeu lu bari mais essaye de trouver du temps de jeu boo ko amee je te rappelle mais tey par exemple ni communication bi dafa war a am quoi en parce que mhm. joueur day soxla coach coach day soxla joueur parce que tey boo jëlee euh, cas euh, Nampalys Mendy mhm. c' est juste que tey dafa nekk jour bu am jom rek mais imaginez par exemple ni ku toog un an joué wul mhm. nga woo ko équipe nationale amul woon temps de jeu ci club am mais loolu logique kan ban équipe nationale moo lay mais tey def na def na def na promotion il a prouvé waaw def na promotion mais joueur bi aussi mu nekk joueur bu am jom mu xam ne ne liñ ma defal nii bon c' est pas c' pas tout le temps donc dama ci war a profiter mais loolu tamit da koy defal ñeneen ñi. Mhm. parce que yow yaa ko fi waxoon nga ne joueur bu joué doo ko woo. léegi yow yaa ngi woo ñeneen ñoo xam ne ne joué ñu. donc moom nekkul nekkul ci logique am parce que li mu waxoon ak li am léegi c' est pas la même chose. non non c' est pas c' est pas la même chose parce que mhm. boo xoolee am na joueurs yu bari boo leen woowul équipe nationale <laughs> doo leen déggati fenn voilà doo leen déggati fenn mais voilà chez moi c' est pas le cas parce que man produit local la donc ñëpp fii leen ma xamee may may voyager donc nga ma équipe nationale woowuloo du changer dara ci sama carrière. d'accord euh, voilà euh, bu ñu jugee ci loolu dañuy ñëw rek euh, nga wax ñu d'où vient la nom de Diégo parce que dégg nañ ñu naan Diégo Diégo Diégo. bon loolu tuuru football la ah tuuru football la bi may nekk gone. Mhm. voilà dama amoon benn mayo bu ñu bindoon Diégo ma fonkoon ko lool. Mhm. donc voilà <laughs> lu ma daan bëgg mu génn sama yaram te en plus que bon. taay boobu noonu laa yoroon tamit euh, gàtt donc moo tax ñu bari bu buñ ma gisee. <laughs> dañ naa noo yaakaaruñu woon ni di nga njool. di nga njool ok voilà après nag tour bi noonu la demee ba ba law parce que léegi boo xoolee Ziguinchor léegi lu ñu miin Stéphane mais avant voilà Diégo rek lañ ma daan wooyee. voilà nga nekkoon euh, un jeune bu nga xam ne ñëpp wax nañ ko da nga ñeme woon entraînement euh, ban conseil ngay jox actuellement jeune footballeur yi. bon c'est juste que affaire bi moom amul amul benn secret. voilà boo ci tolloo moom surtout voilà boo nekkee Afrique parce que ñun d'habitude dañuy dañu gaaw ci naagu da ngay ñëw voilà toj benn année koñ bi yëpp màbb ne yow la après deuxième année bi kenn du la gis donc joueur day day constant day day régulier mhm. te aussi boo ci tolloo tamit foog nga nangu coono mhm. foog nga nangu coono parce que coono boobu mooy ñëw nekk sa njëriñ ëllëg mhm. yan ambition nga am ci football bi bon ambition yi mooy juste continuer di suivre sama sama carrière continuer di ko suivre ba voilà euh, xam naa tamit li ma dese voilà euh, bareetul te aussi sama ambition majeure bi mooy voilà def quelques années après voilà ma ñibbisi aussi ñëw may voilà sama sama casa benn saison voilà may aussi sama ay c'est benn saison après pare naa ci. ok euh, d'accord ñu ñëw ci sa plat préféré balaa ñuy clôturer. bon plat préféré bi mooy suñu carte d'identité fii ah c'est bon. <laughs> waaw jën ñu lakk marinade. Mhm. voilà tuuti diwtiir ak bisaab bu bari. d'accord donc euh, man moom mooy sama plat préféré. mooy sa plat mhm. nga tàggatoo. waaw de di rafetlu encore seen seen teewaay di leen voilà di leen gërëm aussi ci occasion bi ngeen ma jox mu mën a voilà exprimer wu. voilà di baalu Sénégalais yëpp bu doon wax naa fi lu voilà ñàkk teggine voilà di leen ñaanal jàmm di leen ne voilà bon bon retour. voilà euh, merci beaucoup di ko jaajëfal di leen jox euh, dig daje ci yeneeni vidéo incha allah.